mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñu ngi sant yàlla du julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk wax ñun ñëpp alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi imaam Baye Kande di ci teg mbooleem naay bi jumaa yi ak imaam yi nga xam ne ñoo bokk ak moom waaye di ci teg suñu mbokku ci yàlla suñu mbokku taalibe Cheikh Ibrahima Diase ak Cheikh Ousmane Ndiaye ak Cheikh Bachir Ndaw nga xam ne ànd naa ak ñun ci bi jugee Parcelles Fadia ak euh, Géejawaay di ci teg suñu xarit suñu wëllëre suñu genn wàll Cheikh Kabou Baaxum di nuyu délégué quartier yi ak euh, délégué quartier bi euh, professeur Ndiaye di teg mboolem notable quartier bi fii ak kilifa dëkk bi bàyyiwuñu kenn bés bii bésu sant yàlla la ndax yàlla daf ñu may ndollal euh, jaam bi su ko yàlla defee leen ndollal dafa war a sant yàlla ndax mu gën koo dolli Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dafa wax ne ku tabaxal lu tollu te loolu xadis la yéen saa sallam ko wax ku tabax lu toll gàmmu ci juma yàlla dana la tabaxal njënd ci aljana mooy néeg ci aljana wala kër wala étage comme ni ko imaam waxee mu ne waaye tabax yàlla tabaxal la néeg fa moom ak yow nga tabaxal yàlla néeg fa yow soo ko buggee xam mu ne néeg fa yàlla moo gën fuuf néeg ci ñun ñu ne népp fa yàlla mooy soo ko bëgg a xam xoolal boo demee ba nga xam ne sax xol bi dem na ba set ci lu dul yàlla génn ci ba set ba sa am ak bopp gi mujj deñ ci yow mu ne xoolal waxtu woowu neexaay boobu ngay yëg te yow loolu ci yow la xewee fii ci àddina mu ne nag bu fekkee fa yàlla la na nan lay mel kon suñ mbokk mii tey léegi dafa wax benn laaya fi ci léegi mu ne fii néeg yàlla la buñ ko roppalut yàlla wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahad mu ne néeg bi néeg yàlla la buñ fa ookudut yàlla te kii noddu suy noddu dafay wax hayya ala salaah hayya ala falaah ñun kan lay oo te tey aaya bi oo keneen ku yàlla kon foofu Cheikh Ibrahima Niass dafa faa dimbali loolu dafa laaj ñu xam tey ñuy settantal xam gi yàlla mu ne buñ oo kenn ci fii kurut yàlla te booy oo ne kaay leen julli kan ngay oo pour mu ñëw fii pour mu ñëw julli si loolu la ñuy doyee Cheikh Ibrahima Niass pour ñu xàmmee kañ la oo ak kan la war a oo kon Cheikh Ibrahima Niass jërëjëf moo tax ñun ñuy wax jërëjëfe bàyyi fu ñu mën a ne fii nag néegam yàlla la waaye mënuñ fa ñëw mukk ba fekk fii kenn kurut ay jaam yàlla kon sew-sew am na se Ibrahim Niass def na ko ca Makka waa ji taxaw di firi ba yegg suma stawaa alal xars bëgg a melal yàlla ci xarasam ne yàllaa nga toog ci xarasam comme moom ni mu toogee ci saisam bi mu toog moom Cheikh Ibrahim Niass romb ko arrière ba tolloog moom ne ko demeewul noonu mu ne ko dafa mel yow li may dafa am lu la ci leer mu ne ko fooguma ne dafa ma ci wax daf maa óor ne demee wut ni ko waxe ndax yàlla moo gën a yaatu xarsoom ta nit kii pour mu euh, euh, euh, pour mu mën a toog ci dara faw loolu ëpp ko mu xaj mu mën ko mu mën ca toog kon yàlla toog na ci xarsoom comme na nga ko soobee moom yàlla waaye toogul ci xarsoom comme yow ni nga foogee ne yow noonu nga toogee ci sa sa sa fay te loolu ku xam yàlla di ko xamle moo tax kon suñu mbokk mi wax ne fii. nañ fi jàngale yàlla wala nañ fi xamle yàlla dëgg dëgg fii barabu xamukaay yàlla ma li may dénkaane rek mooy nañ ko dundal ndax barab war a dund la te barabu njabootu Cheikh Ibrahim la njabootu lislaam la mbokk yëpp ko bokk waaye képp ku fi def lu toll ne laxasa wala lu ni zarra yàlla dama la ko fay te mbaaxal yàlla ëpp suñu mbaax am nañu yàlla boole fayal ñu boppam ñii dañ fay am association boo xam ñu ko tudde àndoo tam bàyyi rek tax bàyyi rahma mi wax ne moo jënd rajo bi ci association bi la bokk Cheikh Ibrahima Diasse jënd ventilo yi ci association bi la bokk Cheikh Kaba Baaxum man ak Cheikh Basir ñi jënd moquette bii ci association bi la bokk lañ bokk te lañ koo yëg rek def ko waaye ñu ngi gërëm ñi ko taxawal bañ mën caa def loolu ndax ñoom ñooñu may bañ mën a jaamu yàlla ci barab bi mu ñoom ñoo ñu may bañ mën a jullee fii ci waxtu wii nekk fi ci saafante ak suñuy mbokk kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla fay. milliard barab bi yàlla na ko yàlla dundal. mës naa te euh, euh, jumaa ne ba ñu tabax jumaa neema mu ne góorgóorlu leen jumaa ji rafet ndax ni jumaa ji mel noonu la seen dëkk bi mel. kon taaru jumaa noonu mel rek noonu la dëkk bay mel. kon lu ngeen gën ci bëgg mu bëgg seen dëkk bi rafet rek na ko jumaa ji mel. nu jumaa ji mel rek noonu dëkk bi mel tabax ngeen ko inauguré ngeen ko macha allah sañ ci nañ ko seetlu leen nag bés tey da ngeen gis nit ñi commencé sañ seen kër yi ñu commencé yokk seen kër yi di tabax ñu ngeen gën a yokkee rek kër yi gën a rafet du muy gën a dund muy gën a yaatu ñu ngi gërëm ñu ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf